fidèles internautes de Sénégal 7 nuyu nañ leen kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant mbégte la ñuy amaat toujours encore une fois nag di jàkkaarloowaat ak yéen dal leen ak jàmm ci seen émission bi nga xamante ni a ko taamul seen bopp muy makkaan tey nag ñu ñëw daal di si ndaanaan boo xamante su ma leen ko présenté du leen bett ndax ndaanaan la ci lu mu doon fexe na ba bi mu dikkee yàggul yàgg na euh, fexe na ba marqué fi empreinte am te <laughs> leen caaxaan dindeetu dañuy sillonner un peu ci seen i célébrité seen i star wala sax ci seen artiste rien que toog ak ñoom waxtaan ak ñoom kii nag may dalal euh, wax naa ko sànq day wuyoo ci ki nga xamante ni moom mooy Guigui nekk chanteuse boo xamante ni wax dëgg yàlla li ma gën a neex ci moom mooy daa jiital njàng mi ba pare laataa muy doon waykat nuyu naa la sama sama sama mag ji. Euh, maa ngi leen fay bu baax a baax Thiat. mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax a baax tu merci comme toi <laughs> macha allah. nuyoo la ak internetu Sénégal 7 yi ndax yow moom bu ñu lay seetaan dañuy kontaan. voilà may kontaan trop euh, dalal leen ah di dalal émission bi nga xamante ne mooy Makkaan. donc di nuyu internautes ñëpp ah à travers le monde. parce que gis naa ne boo voyagé. Mm. nit ñi euh, ci site yi la ñuy dugg. tout à fait euh, di xool artistes yi seen mm-hmm. interview yi pour gën a mm-hmm. xam. Mm-hmm. kan mooy artiste bi kontaan naa trop ci invitation bi. aca mi ngi noonu moo ko wax de par les les réseaux sociaux wala internet bi tu es international ba tax na ñun nag ñu dalal la ci sunu émission bi di Makkaan émission boo xamante ni ma fàttali ne rek ñetti rubrique dina leen. ci fekk euh, benn bi mooy jomb jomb ndax bëgg nañ euh, benn bi du moins moom mooy baat ak tont ndax bëgg nañ képp ko xamante ni rek internet nga amoon question boo bëgg pose ki nga xamante ni mooy Guigui nga laaj ko ko ba tax ñu daal di leen jagleel boobu am na beneen bu tudd jomb jomb ak li nga xamante ni mooy top du jour waaye dañuy dem di kaat daal di ñëwal leen ci li nga xamante ni mooy baat ak tontu à tout à retour nag euh, ci seen émission bi di Makkaan comme ni ñu leen ko wanee baat ak tontu lañ toll euh, ki ma invité wax naa leen ko je rappelle que mooy Guigui chanteuse boo xamante ni daa jéetal njàng mi te kontaan ci lool ndax loolu day permettre rek ñu xam le ne dundu aar nga am bagage intellectuel te mu lay mën a dimbali un peu partout ak foo jëm mais ñu ñun ñu am benn remarque bu ñu def macha allah Guigui ci ay clip yu extraordinaire gii te buy buy def li nga xamante ni mooy clip am yi dangay gis ni ak bi war yëpp da ko ciy def te lu mu laajte aussi da ko ciy def macha allah mooy waral sax yenn polémique yi constance boobu noonu ak spontanéité boobu noonu nan la ko Guigui di di di di expliquer. waaw mooy fibre artistique bi rek parce que xam nga artiste euh, du dañ lay wax euh, dañ lay dañ lay li nga war a def artiste euh, sensation la mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne yàgg naa ko bëgg bi may xale mm-hmm. donc rêve bu boo xamante ne maa ngi koy réaliser donc su ma koy réaliser dama koy réaliser avec avec passion mm-hmm. dama koy réaliser avec amour dama koy réaliser avec constance comme ni sans demi mesure sans demi lépp loo xamante ne clip bi <laughs> uh-huh. laaj na ko uh-huh. dama koy def comme ni nga ko waxee sama clip inspiration am na clip boo xamante ne je me suis déguisée en en sirène. Mm-hmm. am clip boo xamante ne. Mm-hmm. dugg naa sax si ndox bi ba ba xawoon na lap sax ci biir. Mm-hmm. donc lépp rek pour bëgg fans yi kontaan moo tax ma koy def. Euh, c' est toujours dans le cadre artistique ah. artistique euh, ci loolu rek laa koy laa koy jublu mais du pour leneen. Euh, comme li nga ko wax no seulement da ciy sonn day def li mu war mais aussi lépp loo xamante ni da koy laaj da koy def mais loolu parfois dafay susciter ay polémique te en plus day indi ay critiques yu bëri euh, seetlu nañ ngi gis saa bu génne tube rek moom mooy tey coow li bari na <laughs> <laughs> Guigui euh, yenn saa yi est-ce que doo xam ne lii laaj na ko sax nga xaw koo bàyyi ndax société bi ñu nekk waaye Guigui moom fi mu neexee rek la koy defee daal tubaab fakal waa xam nga nag man yàlla may na ma benn affaire mooy ku may seetaan da ngay kontaan mhm. man képp ku may seetaan même bu ñu la nee eh dama xooli Guigui li mu def fa garaaw yooyu noonu yow boo ñëwee seetaan ko da ngay kontaan da ngay mhm. ne c'est c'est euh, c'est artistique mhm. xam nga de l'émotion parce que loolu rek laa ci jublu pour bëgg lu neex nit ñi. Mm. mais nag comme chaque fa ni ma koy waxee on est dans un pays boo xamante ne bàyyiwuñu kenn caat. Mm. Mm. donc euh, da ngay toog sax kilifa diine ñi. waxtuwam tudd fu bon. Mhm. léegi daal dafa nekk euh, loo xamante ne euh, sénégalais du ñëpp nag mais am na ñenn ñoo xamante ne loolu mooy seen vie. peut-être loolu moo leen di jox plaisir. Mhm. Euh, da nga koy bàyyil ak ñoom bàyyi ak critiques yi. Mhm. mais fans ak sa genre yi nga xamante ne ñu ngi may gis di bëggee di kontaan. donc man ñooñu rek ñoo tax may liggéey. ñooñu rek moo tax ma nekk ci ba tey ñoo may motiver. mu mel ne sax oto jiitu rek la cornet tout à fait elle est motivante a de a du <laughs> bari ay polémique mais nan nga koy dundee parce que nag euh, jàmbaar dëgg la am na te jàmbaar nga mais nit ku nekk nag yenn saay boo toogee dina am lu la metti nan nga koy dundee soo gisee commentaire yi soo gisee euh, relance yi muy am. non jaafee nag. parce que nag euh, problème bi nga xamante ni <laughs> le vrai problème xam nga danga nga fa defoon benn clip boo xamante ni ci clip bi yaa am na benn waaye bu la doon saxal banaana. <laughs> man damaa foogoon ne le monde bascule ku ne di wax. nan nga ko dundee. non xam nga clip bi nag banaana bi comme ni nga ko waxee c'est venu spontanément comme ça nii rek dañ doon clip. léegi ñuy dem Ngor traversé ñu ne xaan jëndaale fruit comme man su may clip damay togg ñi di lekk et tout donc ñu jëndaale fruit bu jëndaalee fruit may euh, nuyuwaale réalisateur bi muy Jules Baye gis nga moom moo dama woote nii léegi parce que dañoo war a liggéey mm-hmm. euh, fruit rafet frais mm-hmm. xam nga banaan ay frais et mm-hmm. mu ne te ñu koo teg ci clip bi xam nga ñu xaw a improviser benn scénario donc yàlla def nag affaire bi am buzz et te comme ni ma koy waxee lekk rek la nit ñi nag dañ koy gisee lu nekk parce que ñoom la seen xel toll foofu mais lekk ñëpp xam na ne banaan day mais bi nga koy def bi nga koy def gigi maag yow ay wax bi vitamine lekk la <laughs> bi nga koy def amoo lenn lu la sa xel jox nga xam ne lii dina indi polémique non sérieux hmm. sérieux sérieux hmm. honnêtement hmm. man pour man sax bi may dugg ci ndox bi sax loolu la nit di gën a wax euh, pour man nit ñi la ñuy gën a gis ne ah gigi elle prend des risques et tout maquillé solo dugg ci bi ndox bi nuuru pour man loolu mooy indi polémique mais après le simple ba <laughs> <laughs> le simple fait c'est que je prends la banaan uh-huh. xam nga affaire bi nekk gi banana banana ma ne waa banana dañ koy lekk. Uh-huh. xam nga wala yow loolu bi mu commencé am est-ce que amoo taw dafaatoo nag benn réplique xam ne kon peut-être am na leneen lu muy sous-entendre. waa xam nga euh, comme ni ma la waxee sénégalais yi bi ñu commenté au laa bëgg a wax ñoom ñoo la yóbbu ci beneen pensée boo xamante ni peut-être sax yow amoo ko woon su ma juum. waaw loolu la mais comme ni ma wax rek xam nga man dama démocrate en fait. man moo tax euh, les critiques euh, du ma du ma du ma touché parce que man man dama démocrate man dama nekk ni koo xamante ne euh, caat yow loo bëgg mm-hmm. dama lay seetaan ak yow li nga bëgg mm-hmm. ma seetaan la ak moom parce que dañu naan ku dee ak sa bàmmeel voilà nit bëgg na doom mm-hmm. suul na ko nit bëgg na yaay suul na ko bëgg na papa suul na ko bëgg na jëkkër jabar suul na ko donc loolu moo waral ku dee ak sa bàmmeel nit da nga koy bàyyi ak conscience am moo tax ku ci nekk ku ciy wax damay ne ah loolu la c'est pas grave c'est sa pensée man sama yoon nekk si man li ma si jublu woon rek mooy sol naa yére bu jaune Jules Berne ma banaan bi jaune bi dina ànd mm-hmm. ma xalaat kase couleur bi ak lekk banaana bi donc mm-hmm. après ñoom ñu yóbbu ko feneen <laughs> <laughs> alors c'est toujours dans le cadre de bien faire et de bien servir ses fans. gàtte ba lépp loo xamante ni rek euh, bëgg nañ ko wala ñu koy xaar ci ñoom mu jox leen ko ba mu doy Guigui laa invité ci seen émission Makkaan euh, mais Guigui dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy sa style de musique ce genre musique euh, moom ban style la exactement parce que Guigui bu ko neexee mu daal di def mbalax bu ko neexee mu daal di am lu mu ci dugal Guigui daal da ngaa doy waar Guigui Guigui looy way. Thiat Baye Toya <laughs> <laughs> waaw <laughs> Aïcha ñëwal. Euh, euh, je fais du pop mbalax ah. dire mbalax loolu mënu ma ko bañ. parce que je suis sénégalaise. Euh, damay kontaan ah su ma voyagé. Mhm. ñiy déglu mbalax sama son di ko déglu di ko fecc. Mhm. ñi nga xamante ne xamuñu sax luy mbalax loolu daf ma neex donc mënul génn sama ADN. Mhm. mais en même temps j'ai essayé de réconcilier la musique internationale et la musique nationale. pour au moins boo génnee. ku ci nekk gis si boppam am na ay sonorité yoo xamante ne ñoom dinañ ko mën a déglu. donc mën ko fecc mën ko comprendre parce que mbalax c'est très difficile. vraiment c' est une musique très difficile à comprendre. Mhm. parce que da voyager man école bi ma nekkoon noonu doom def sama formation cinéma. Mhm. Euh, bi ma leen tegalee yeneen wuy ay tay mu neex. Mhm. ay xàppi bi mu jéggéen ay yeneen yi fecc nañ ko. mais bi ma tegee mbalax bi. dañ ma ne sa c' est quel genre de style. loolu lañ ma njëkk laaj. ma ne leen lii mooy mbalax wax leen ne mu ñu ne ma ndax am na yeneen dëkk yu koy def ma ne leen non non Sénégal rek moo koy def. s lañ ko créé et dafa neex. dafa neex nga am sa identité. man may jéem a euh, euh, relier yëpp yëpp yëpp yëpp mais je dirais que variété laay def. parce que album bii di waa a génn xam naa dinañ ci wax. Mhm. donc yaa tu tout. d'accord ci album boobu sax nag laay loo ñu waxtaan ci parce que ci kàttanu yàlla nee nga dina génn mois de mars. incha allah ci kàttanu yàlla lan ak lan lañ ci mën a xaar. comme ni ma la wax rek variété musicale. Euh, dinañ def euh, pop dinañ def mbalax euh, mm-hmm. dinañ def raga. Mm-hmm. dina def dinañ def aussi afrobeat. dinañ dem aussi ci ci slow. Mm-hmm. ak R&B. mën nañ cee xaar ay featuring waaw featuring bi ma ci def mooy benn allemand love bi ma defam Allemagne ah moom dina ñëw sax incha allah sorti album bi invité naa ko don mhm. maa ngi koy xaar euh, mhm. def naa ak Oumou Sow aussi sama sista boobu nga xamante ne vraiment nit bu ñàkk ki ñaan voilà ku baax a baax a baax a baax mhm. bëgg ma sentir ma respecté ma voilà loolu moom ma neex ci moom ba tax na def naa ak moom ñaari son muy euh, bombal bi ak happy bi nga xamante ne ngi génn récemment donc di ko ñaanal aussi moom mois de mars mooy suñu mois donc man la 4 ma génnee sama album moom le 13 mu a dem feetewaat foofu album bi sorti album bi donc may woo Sénégalais yëpp le 13 fekk umu sow Sorano sama mag jooju sow la ardo na la yàlla defal jàmm moom daa baax te daa bëgg ki nga xamante ni mooy sëñ Fallou mais noonu la ñuy demee rek ba tey euh, daal di ñëwaat ci ki nga xamante moom mooy Guigui moom laa invité ci seen émission Makkaan euh, tey nag ñu am plaisir comme ni dalal euh, waaye yenn saa yi dafay am ay fee yu am Sénégal yenn saa yi da ngay gis ay xale yu jigéen yoo xam dañuy nekk ay victimes yenn saa ñii dañ leen di nax ñii peut-être seen copain moo leen di proposer ba ñuy am yenn saay ay ay dérapage ci internet bi gi gi ñan lan lay conseiller ñooñu nga xamante ni yenn saay duñu xam wala peut-être seen amour la ñuy topp wala yenn saa ñu teg leen dil lan ban conseil la gi gi di jox ñooñu waa xanaa rek euh, comme ni ko wax xam sama album esprit la tudd. mooy esprit yàlla na yàlla sopp xel yi. xel dafa garaaw caat. xel dafa c'est incroyable. parce que comme ni nga ko waxee xale yi léegi ay mm. victimes lañu te ñoom lañuy saaga. Mm. xale yu jigéen yi. Mm. même bu fekkee euh, fee yi am na góor ak jigéen sax. da xool ne ku jigéen ki moo ci gën a sonn. j'espère que lu mel noonu way nga ko ci biir biir sa album bi. waaye mooy esprit bi ma wax rek dama ne esprit mooy xel. xel mooy mind. maa ngi ci wax aussi euh, tu n'as pas besoin de faire du mal pour survivre. donc te jamono bi ñu toll man dama gis ne nit ñi. lu bon moo leen di dundal seytaane daf ñu mun trop. Mm-hmm. nit ñi wax lu bon. Mm-hmm. ak def nit lu bon. Mm-hmm. ak xañ caat loo xamante ne caat tey mën naa la woo. ma ne ah ma la ma ma ne ah. caat de tey dama ko war a jox 5 millions. Mm-hmm. benn Lamine jóge fële caat li tax nga ko jox 5 millions lan la fi dama ko xam nga yàq. sama xel. Mm-hmm. ma toog a ma ne ah comme li ñuy wax rek seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. tout à moo tax ma ne euh, moo tax. album bi sax ma tuddee ko esprit bien vrai que esprit bi li ko gën a soxal tamit mooy j'ai réuni tous les esprits pour ñu def album bi mm. donc pour revenir pour rebondir ci sa question bi rek mooy nañu soppi xel yi mm-hmm. soppi xalaat yi mm-hmm. parce que xale jigéen yi ñoom ñooy victimes yi mais ñoom la ñuy gën a saaga mm-hmm. euh, di leen wax aussi ñu def très attention très attention di wax aussi parents yi nañu waxtaan ak seen doom yi je pense que les sujets tabu dagguma la sax moo waral yenn dérapage yu bari yi. exactement man sama yaay. Mhm. maag moom on parle tout et de rien sama xarit bu ñu fekkee ñuy waxtaan dañuy tiit. parce que dañuy naan ñoom amuñu chance boobu amuñu complicité boobu ak seen parents yi te man tamit damay gis ne amuñu waxtaan boobu ak seen parents yi tandis que man sama yaay lépp lu ma def. Mhm. même bi may gën a nekk xale su ma xamee ne lii ça mérite des corrections sax dama koy ñëw wax. Mhm. su ko defee moom mu wax ma mhm. sentiment li tax lii li tax lii li tax lii bu subaa ma xam nan laay demee mhm. léegi nag xale yi euh, xale jigéen yi elles à la merci de de la rue xama ak ñi nga mhm. xamante ne influence yu bon yi bëgg bëgg yi bari bëgg ay bëgg buzz xam nga te euh, ñëpp léegi ay star lañu. Mm-hmm. loolu mooy moo waral yëpp ah. Mm-hmm. parce que ñëpp ay star lañu. dañuy mm-hmm. toog di snap di wane seen vie. te euh, du am na yoo xamante ne jugul ñëpp. man daal li ma leen wax mooy nañu moytu. mbëggeel. moom la yóbbu ci yenn xale góor yi moom loolu dañ koy def rawante. temps yi dégg naa. Ah dañuy toog ne waaw soo ma nobee euh, filmeel sa lii yónnee ma soo ma nobee filmeel sa yi. xam nga te mooy loolu daal. donc nañu waxtaan ak seen parents yi. nañu waxtaan ak seen xel. ñu def très attention. message fort bàyyeekoo ci ki nga xamante ni moom mooy giig Guigui moom laa invité mais Guigui damay desandi ba tey ci violence. Mhm. parce que yàggul dara. boobu ba tey amuñu chance donte événement bu yàggoon la woon te bugguñu sax mu amati benn victime boo nekkoon Tambacounda ñu violé ko euh, ba mu ba mu mujj décédé euh, Guigui peut-être c'est la première fois mu am chance wax ci nan nga ko dundee woon en tant que femme. waaw man nag li ma soulagé mooy. Mm-hmm. Euh, après dama dégg ñu ne waa ji mujjul sax yegg ci moom. voilà mm-hmm. donc loolu soulagé na ma parce que violé la rey la loolu dafa métti. voilà donc euh, am naa lu ma métti nag parce que mm-hmm. rey na ko. mais comme xale bi xeex na. Mhm. xeex na avec toutes ses forces ba yeggul ci moom. Mhm. donc loolu euh, yal na ko yàlla xare àjjana may mhm. ñaanal parents mi xolu muñ parce que xale bu ndaw la woon. donc ñu ñëw ko këram. violation de domicile agressé ko et puis c'était un proche. donc loolu nekk na lu ma métti métti métti métti métti ba nga xamante ne. Euh, mënuma ko sax natt. en fait âge xale bi. te il paraît que euh, xale bu am diine la woon. donc di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di wax nit ñi comme nañu moytu. ku la gën a jege. Euh, bul am confiance ñëpp voilà donc ku la gën a jege moo la gën a mën a jam paaka mm-hmm. parce que histoire bi après man bi ñu ko nettalee mm-hmm. comme man ay affaire de crime rek laay seetaan mm-hmm. man affaire bi sax dama ne kii xanaa day seetaan affaire yi parce que nu mu ñëwee def crime ba pare ñëwaat moo dem rangelé Chine naka. papa yi dégg naa moom moo doon nekk bras droit papaam. ça c'est grave mooy dëmm rey la. jaale la donc euh, mu doon lu ma métti daal mu doon lu ma métti métti te xam ne bëri na fi. Mhm. nit ñi ñi ngi noppi. Mhm. Euh, am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di violer mënuñu wax. Mhm. parce que bañ nañ ku leen jugé comme ni ma ko waxee dañoo nekk société boo xamante ne. même buñ la violer woon boo amul doole dëgg dëgg dëgg. da ngay mujjee toog da ngay ne ah. wax naa ñi ñi xamal nañ ma te fajaluma ko ma mm-hmm. mujjee toog ñi mujjee toog mm-hmm. donc mu mm-hmm. nekk loo xamante ne dañ ci war a jóg bu baax a baax ngi noonu euh, gi waaye nag dañoo nekk ci société boo xamante ni yaa ko wax léegi dafa bëri tentation est-ce que tey je le dis pas parce que dama bëgg xam mais ñi la bëgg bëgg nañu am parce que rumeur yi dafa bari est-ce que mës na la dal genre mel tentation de viole wala chantage wala yenn yoo xamante mën nañ ko xam exactement waa dinaa wax nag loo xamante ne mosuma ko wax tey uh-huh. donc man bi may gën a jeune uh-huh. euh, j'avais quinze seize ans mosoon naa am genre euh, événement bëgguma ci sax wax parce que c'est euh, uh-huh. bëgguma ci wax sax dëgg la mais mais mais nga baal ñu tuuti rek nga expliquer ñu ñu xam tuuti parce que tamit gis nga nit yenn saa yaa ngi koy jugé te doo ko xam des fois nit nit ki mi ngi koy takkal benn étiquette te xamu ko alors que soo xamoon dëggantaan fi mu jaar di nga xam ne jàmbaar la te ñun suñu émission bi bi ñu koy def c'est juste pour permettre la personne non seulement mu am place ci société bi gën a revaloriser li muy def mais ñu xam moom mooy kan. waaw dinaa ci wax nag parce que li tax ma bëgg a wax si parce que pour xale yi tey ñu xam seen ñu xam seen xam seen xam lan la ñu war a def. donc histoire boo xamante ne yàgg na donc euh, maa ngi nekkoon lycée. Mm-hmm. amoon kenn koo xamante ne sekkuñu woon dara sax. Mhm. mais xam nga man moom dama nekk ni koo xamante dama mës a bëgg a. Euh, voilà man góor yi laay gën di àndal sax ka jigéen yi yàlla moo ma nattoo laay wax xaw ma lan. Mhm. donc mu nekk koo xamante ne dëkkoon na ci koñu école bi di ma gis souvent. Mhm. après ñi xamante tout le temps. comme ay booy jàng lycée xam nga parfois da nga am cours huit heures dix heures après balaa nga amaat la force laa nekkoon grand F sori. donc mu dem ba waaj ci koñ bi la dëkkoon nag mu dem ba nekk suñu xarit. saa yi ñu posé nii dañuy dem këram. dem waxtaan et tout. Mhm. donc un jour euh, suñu waa classe yi je sais pas ñëwuñu woon am na daal nu mu demee woon. Mhm. ma dem ñuy waxtaan après mu bëgg dara mais je me suis je me suis tellement débattue. Mhm. ba moom sax dafa tiit. ok dama ne. man dañ ma yar fi ma war fi ñu ma war a yaree. Mhm. donc euh, xale laa. Mhm. ñëw di jàngi suñu waa yaakaar ci man. Mhm. donc am na yenn yoo xamante ne. du ko nangu. te man caat. maa ngi la koy wax sànq sama yaay on parle de tout et de rien. te bi may gën a nekk xale dama nekkoon xale yoo xamante ne ku ma gis bëgg ma. ba léegi ma ne ko ci ba léegi sax <laughs> xaritu yaay dañ la wax sama yaay. ne na ma surveiller bu baax. parce que sama grande sœur mi ma màggee presque dix ans. donc man comme xale laa woon. d'accord. Mm-hmm. donc lañ ne sama xaritu yaay dañ ma doon ne sama yaay na ma surveiller bu baax ba sama yaay lu ma sol mm-hmm. ba léegi dama ko tàmm lu ma sol dafa ma doon solal kilote parce que depuis bi ma nekkee xale comme xam nga gis xale kon ba nii ni da ngaa jiital kilote <laughs> gigi du ma rey man yow laa bëgg voilà euh, ah. euh, mu nekk sama yaay dafa amoon benn mm-hmm. seetlu bi ci man damay dafa amoon seetlu. mais mais ce gars là n'a pas réussi son euh, maanaam. son non jamais jamais je comme ni ma la wax. très bien sama yaay daf ma mais après am na suivi sa yaay wax nga ko ko. non waxuma ko nag parce que tax waxuma ko ko. mooy yóbbu nañ ma ci école pour ma jàng. Mm-hmm. bien vrai que man maa ngi doon bañ a taxawaalu ci école bi. maa ngi amoon kenn koo xam te mag la ah, ki ma wax ni mag la moo ñu magoon ñun ñëpp ñëpp tonton lañ lañ ko wax. ñi nga ko foogewul ñoo koy def voilà. comme ni ma la expliqué nii rek bu ñu ñëwee jàng leen yéen ngi def lii ma xool seen cours ma xool seen lii ba pare dafa aayoon mat. donc daf ma doon jàppale parfois ak suñu classe yeneen yëpp ci mat bi. donc soo ñëwee mu ko def lii def lii après jour boobu nag. Mm-hmm. yàlla def suñu classe yi foog naa ñëwuñu je sais man ma demoon fa man kese noonu. Mhm. bi mu commencé yooyu tëj bunt yooyu ma ne non il il ne il ne il ne va pas faire ça. ok non léegi mais heureusement comme man. jean rek laay solo ak yooyu noonu. Mhm. non je me suis débattue. Mhm. xeex. xam naa ne su ma mënoon a rey dina ma rey mais yàlla def na ëpp ma doole. ëpp ma doole je me suis débattue débattue xeex xeex xeex ba. dégg naa sax moom dafa feebar après. Oh. tellement que. sama dama ne lii duma ko mos a def duma am ay parents ñi yar ma ci ci diine mhm. yar ma ci téye sa bopp mhm. may ñëw fii di jàngi si di si wut diplôme di lu ba lii di ma dal après mhm. fan laa koy waxee donc euh, moo tax may ne à chaque fois parents yi nañ jege seen te di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom. moo tax bi kaa bi amee xale bi après ma déglu ne elle s'est daf la fàttali malheureusement daf ma fàttali. parce que ma ne waa man comme man waroon naa comme kii su ma ëppoon doole man mu yoroon arme comme reyoon na ma bu baax. après ñiy toog di nettali sama histoire mm. donc affaire daf ma fàttali cas mm. bi mm-hmm. daf ma ko fàttali bu baax baax te xam naa y a des milliers de gens yoo xamante ne ñu ngi loolu am na ñoo xamante ne dañ ciy jaar mm-hmm. am na ñoo xamante ne duñ ci jaar ñi rey leen mm-hmm. wala am na ñoo xamante comme sama cas la mais loolu c'était c'était vraiment longtemps c'était bi ma nekkee lycée après nag koñ boobu sax. bëggatoo fa jaar non ba léegi nii sax duma fa romb. mu ngi noonu lu ñuul kay fu ko gisee da ngay daaw acca noonu lay pët noonu la ñuy pëtaxloo daal di dugg ci li nga xamante ne mooy seen rubrique jomb jomb dañuy dem di kaat daal di koy gën a yaatal à tout bari na ñu leen di gis ci écran yi ak réseaux sociaux yi ba jàpp ne amuñu lu ñuy jombale seen bopp tey nag damaa toog ak Guigui émission Makane képp koo xamante ni seet si naa la rek dinaa la laaj rubrique bi nga xamante ni moom mooy jomb jomb Guigui tey su ma la doon laaj lan ak lan la jombale boppam ci loo xamante ni tey jàpp nañ ne sax loolu c'est c'est pas Guigui parce que li muy wane li muy montre toujours mën na bañ a coller avec son image euh, tey lan ak lan nga may wax. <laughs> waa am na loo naa ak sama bopp mais jarul wax. Mm-hmm. Euh, parce que comme ni nga ko waxee rek. boo ko waxee sax ñu ne moo. mais jar na wax en fait jar na parce que ñi may dem ñëpp dañ koy wax xam nga sama émission bi waaw xam nga Guigui moom. man ku may seetaan day ne Guigui dafa sañ a wax boo tax. moo tax <laughs> damay namm di ko seetaan. Mhm. mais bon loolu jarul wax. Mhm. loolu mooy loo xamante ne lu may dund la. Mhm. xam naa ne jommale naa ko sama bopp mais man. li ma mën a wax loo xamante ne jommale naa ko sama bopp aussi mooy wax euh, lu ma wóorul. ak wax waxu jàmbur. man je suis pas comme ça. man foo ma fekk gis nga comme la ko waxee ay góor gis nga Lamine nii mooy sama xarit man ay góor rek. ñooy sama xarit te góor est-ce que tal na ay waxu kii. non non bu ñu bu ñuy wax maa ngi moom projet la ñuy wax. donc lan laa def lan laa kii ñi ka fooree mhm. jeex na. Mhm. moo tax euh, damay éviter souvent mhm. copinage yi. parce que copinage moo lay ay wax yu sew moo lay indil lu nekk moo lay yóbbul moo lay indil. tandis que booy ànd ak góor yi ñoom. ñoom ay waxu avenir lañ lay wax euh, leneen ak leneen daal. man daal wax loo xamante ne. vraiment leeruma amul sax du ma wax sax waxu jàmbur taluma ko voilà ma je suis casanière donc à part la musique euh, sama kër laay tëdd dama la sama kër yaay Mm-hmm. donc euh, voilà. très bien aca mi ngi noonu nee na jombale na boppam wax waxu jàmbur te loolu kuy gor aussi war nga koo jombale sa bopp ndax moment bi ngay waxtaan ci kenn kooku ma ngay avancé di réussir mi ngi noonu euh, elle a nag sa propre boîte est-ce que mën nañoo mën nga permettre ñi lay seetaan te bëgg la ñu xam à part la musique lan la gii di def waaw tey comme ni nga ko waxee yéen a ma fekk euh, sama bureau may liggéey comme mm. émission bi ci bëccëg bi lañ koy def. donc euh, ma wàcc nag euh, accueillir leen fii si sama mm-hmm. bureau. Mm-hmm. donc muy G plus. muy agence de communication bi nga xamante ne moom laa créé il a de cela un an. ak sama marque bi nga xamante ne mooy Guigui. donc li ma sol nii sax ci la jóge aussi. donc tissu yi sama benn yaay bu nekk Suède bu ñuy wax Fatsa la. moom may envoyé tissu boo xoolee. tissu bi mm-hmm. nga xam ne dentelle dentelle tubaab la. waaw moom laay jël. Euh, ak sama tailleur yi plus ñëw ko créé ci muy sama marque Guigui mhm. am nañ tam euh, yoo xamante ne dañ koy dem dafay jee Chine yoo xamante ne industriel la yi doon du mhm. doon loo xamante ne dañ koy ñëw mhm. parce que euh, defar boobu mooy gën a bëri te mooy gën a gaaw ko ñaw bi tout le temps voilà en même temps aussi euh, damay def décoration intérieure extérieure damay def euh, tout ce qui est euh, consulting mhm. c'est-à-dire di jàppale nit ñi mhm. si bu ñu amee produit naka lañ koy jaayee bind ay publicité jox leen et tout parce que loolu laa jàng aussi loolu laa am diplôme en même temps aussi maa ngi suivre benn formation cinématographique au niveau de la France def naa sama première étape bi mais ak album bi di génn moo tax ma dellu si waat Sénégal uh-huh. man moom je dama bëgg trop sama dëkk <laughs> waaw sama dëkk moom uh-huh. dama ko bëgg trop ba nga xamante ne uh-huh. waxoon nañu sax naa toog France génnee ko foofu mais su toogee France génnee ko day mel ni génneewu ma album moo tax ma ne comme sama album la autoproduction laa def naa ñëw fi Sénégal génnee ko dem yeggale waat sama cours yi effectivement ginnaaw nag kuy dund am na lu la neex am na lu la nakari je pense que am na sax lenn loo ci wax mais tey bu ma la doon laaj gi yow lan nga dund loo xam ne neex na la trop te doo ko fàtte bari na peut-être mais bi la ci gën a marqué. est-ce que jaar na boobu. gis nga Guigui nag mënoo jàpp émission bi lu ma la laaj nga dem ma est-ce que jar na ko bi da koy jar. ndax li tax ma set waaw mais kon nga choisir beneen. mais boobu moom xam naa ne moo la gën a neex. waaw a neex. léegi lu tax nga ñaanee ma ko Guigui. non parce que c'est ah, hmm. man caat mi sëñ Saliou laa du ma léegi waxal beneen. beneen lu ma neex. waa xanaa jour bi. ma yóbboo sama yaay Rome ba mu jógee Rome. ndeysaan mais ma koy yóbbu aéroport ak bi mu koy jëli. Mhm. ma xam ne loolu moo nekkoon rêve am. donc euh, ma réaliser ko. Mhm. loolu daf ma neex ak mhm. jour bu ñu koy defal feetam bi nga nale et tout yooyu noonu. ma gis ko nu mu kontaanee. Euh, ma xam ne parent bu ci nekk boo sañoon tey. dem muy catholique bi ah, nga dem Rome. muy jullit bi nga dem Màkka. donc damay gis ñoo xamante ne. boo yóbboo màkk rek bu ñëwee rek bu ñuy naan man mën naa sax dee ndeysaan mm. tellement ko pour ñoom purifier nañu bëggatuñu beneen baakaar voilà donc loolu moom nekk na lu ma neex ci àddina voilà euh, sant may sant yàlla aussi bu baax a baax a baax ci loolu mm-hmm. Guigui elle est chrétienne oui te Guigui bu benn musulman ñëwoon bëgg la marier est-ce que di nga nangu bien sûr man j'ai pas j'ai pas ce problème non non non non pas ce problème lan la Guigui di xaar pour se remarier bon ku <laughs> Guigui ñu baax ñu dañ fee dell lan la Guigui di xaar. lii lay la man lu may xaar. waaw ñoom lay xaar. Hmm. parce que parfois da hmm. bëgg. Euh, da ngay bëgg. Hmm. du sotti. mais actuellement tu en couple. waaye ki fi nekk lu muy xaar. loolu la loolu la lay xaar wala xàppe. loolu la ñëpp di laaj. ah man de Guigui wala ñu waxal ko ko officiellement yi <laughs> ci kanam. saa waay looy xaar doo ñëw ci Guigui bi ak li mu nga ma wee nii. ma ne loolu ma jaaxal loolu ñëpp di laajte lu muy xaar. acca jomb jomb jeex na dañuy dem ci top du jour rek daal di ñëwaat à tout ñu toll nag ci sunu rubrique bu mujj euh, muy top du jour ku ñu dem nag dinañ ko ko laaj ndax c'est une sorte de cri de cœur permettre ki nga xamante ni moom lañ invité soit mu joxe benn message wala mu wax lu ko gën a ci société bi wala ci li nga xamante ni moom lay évoluer Guigui su ma la daan laaj tey sa top du jour fan nga koy accentuer lan nga may wax. waaw dinaa ko soo ma ko permettre naa ko accentuer ci ñaari fànn. benn bi mooy euh, euh, ñëpp xam nañ ne damay xeex euh, feebar bi nga xamante ne mooy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus donc ma bëgg gars yi ñëpp gouvernement sénégalais. Mm. bonne volonté ñëpp. Mm. ñu ñëw jàpp ci combat bi nga xamante ne maa ngi koy def. muy lutter contre les cancers mm. des femmes. mu nekk cancer feebar boo xamante ne mi ngi dal jigéen yi te nit ñaa ngi koy fooyee. chaque année damay organiser festival. au niveau de Grand Yoff. Mhm. région yi nag ñi ngi koy laajte. caat mhm. région yi ñi ngi koy laajte. parce que dañ koy soxla. dañ koy soxla ñun ñoo ko gën a soxla que fii sax Dakar. Euh, surtout ma cancer du col bi mi ngi sonnal famille foofu euh, may woote nag ñëpp à travers Sénégal set ñu mm-hmm. ñëw jàpp ci li nga xamante ne mooy sama lutte bi mm-hmm. ñëw ñu dem ci région yi mm-hmm. dépister famille may leen ay bon de mammographie ah faj leen donc je pense que c'est le plus important li ñu wax fagaw moo gën na ñu bàyyi ba feebar bi ne këlëb ñëpp di daw si ku nekk di wuti remède euh, nañu dépister famille ma chérie dagguma la sax mais gisoo jàppoo ni maanaam polygamie bi dafa favoriser loolu euh, non polygamie bi je ne pense pas. Euh, parce que waaw polygamie. parce que dafa am ñu ma doon waxtaanal ñu may xamal ne ñoom benn la ci facteur bi nga xamante ni yenn saa yi mën na indi cancer de col de l'utérus xaw ma nag lan moo tax. non non non polygamie euh, euh, vraiment euh, nekk na loo xamante ne tam lu doy waar la. Mm-hmm. mais je pense que képp kuy góor nga nekk polygame. Mm-hmm. di nga jóg di saytu sa bopp. du ñëpp waaw loolu moo moo tax ma leen di wax sax. Mm-hmm. war nañ ko def. parce que léegi da gis benn ñaar ñett te polygamie sax dañ koy wax mais am na lu raw polygamie. xaw ma naka lañ koy tuddee mooy nga am benn jabar am dix maîtresse boobu gën a graaw mm-hmm. parce que boo amee benn jabar boo amee ñaari jabar sax mm-hmm. parfois damay gis suñu yaay yi di ko def mm-hmm. nga dem si sa benn jabar bi ñëw ci beneen jabar ji Mm-hmm. musul am ay perte blanche ma la dara. mu am ko mu waxtaan ak sa jëkk mu mu waxtaan ak waa ji. Mm-hmm. ne ko su fekkee sa beneen soxna si. Mm-hmm. Euh, waxal ak moom lii ak lii parce que man lii musuma ko am. te comme yaa ngi dem fii di ñëw fii. Euh, jéemal waxtaan ak moom ku góor ki dem waxtaan ak kooku. ñu jóg dem feju ku góor ki aussi dem xoolaat boppam. mais léegi dañuy gis koo xamante ne day am sax ñeenti jabar. am si dix maîtresses. te comme xale jigéen ñi léegi moom. du ñëpp nag. mais am si ñoo xamante ne mooy loolu. moo raw sax clando fu fu ne la ñuy dem donc loolu ñu ngi tooñ ki nga xamante ne mi ngi toog këram di sëy mm-hmm. loolu war nañ ci jóg mais bu bugguma wax ne nag polygamie moo koy indi mm-hmm. xale ñëpp ku ñu bëgg a takk ñaareel nga ne bugguma <laughs> mais c' est sûr que ne góor moo koy jox jigéen ki. d' benn feebar virus boo xamante ne bactérie boo xamante ne ku góor ki. Mm-hmm. moo koy jox jigéen ki. waaw microbe boobu. moo koy jox ku jigéen ki ba mu indil ko cancer du col de l'utérus bokk na ci facteur yi xaw ma nag it ndax am na leneen mais man li ma xam mooy góor rek moo ko mën a jox ki jigéen ci loolu bëgguma ko nag honnêtement hmm. parce que danga ci euh, am expérience non non bëgguma ci wax <laughs> ba tey ñu dem ana beneen fànn bi. yow am na loo xam lu ma xamul yow. <laughs> waaw beneen fànn bi mooy nit ñi nañu xam ne caat ñun ay artistes lañu. tout lépp loo xamante ne def nañ ko c' est dans le cadre artistique. fan yi rek démb rek maa ngi dem snap ak sama benn frère mooy ki ma lay wax noonu Lamine. ak sama benn copine Keso. Mm-hmm. ñu ngi dem snap suñu snap. Mm-hmm. def suñu yu baax di lekk. Mm-hmm. teg suñu somb bees bi xàppi def suñuy banaana. ñu xëy ñu revue de presse ñu. ay waay fan la mais Guigui yow amoon nga kaa ci banaana waaye Guigui yow amoon souvenir bu garaaw ci banaana nga foofu <laughs> non dañ koy waxtaani quoi amoon nga kaa ci banaana ngay sina baat xi ñun moom ñun nitu xàppi nga xam nañ ko ndax dangaa nekk nit bu ouverte waaye am nga kaa ci banaana te yaa ngi ci société sénégalaise doo ba banaana <laughs> non banaana <laughs> yoo xam ne dafa baax banaana da lay jox vitamine dafa baax banaana banaana dafa baax. man tey jii bi ma xëyee nii euh, bi ma sama rendez bi ma xëyee naan sama kafe très sama rendez di préparer seen émission bi. Euh, benn banaana rek laa lekk. Mm-hmm. mu suux mm-hmm. instant yi. Mm-hmm. donc nit ñi nañu bàyyi di yóbbu banaana ñu dañoo toogoon di lekk suñu banaana ñu xëy na gigi ak banaana. donc c'est quoi le problème man il faut ma commencer jaay banaana sax. <laughs> kon nag da nga ciy tooy xeeb mbaa nga takk ci rip bis boo ko defee dañ naan ñun lay ñaawal ñu. may may jégalu bu baax sama frère boobu di Lamine parce que tey démb nelawul tey aussi mu ngi xëy stressé. ah sama copine bi aussi question xam nga ñun ay artistes lañu ñun dañuy encaissé man surtout maa ngi man moom sama carapace comme acier. Mm-hmm. voilà mais ñoom dama leen yërëm. <laughs> loolu de parce que Lamine eh, léegi ñu koy wooyee Lamine Gigi Banana. Ah. vraiment mu nekk loo xamante ne aussi ma koy jéggalu bu baax a baax ak sama copine bi keso. Mm-hmm. moom tam da doon saxalaate boisson rek la doon saxalaate bu bon. <laughs> en tout cas elle est sans façon. waaw nit bu baax la te man damay kontaan di jàkkaarlook moom ndax wax dëgg yàlla day nitu kase dama lay ñaanal rek jàmm yoon la boo neex na neexul neex na bu fekkee li ngay wax rek gëm nga li nga gëm xam nga ne nekkoo ci lu bon defoo ko waxoo ko yàlla da lay teg loxo te yàlla na la toutes les énergies positives daal lay wallu amiin amiin amiin ci barke li nga gëm tamit muy Jésus yàlla defal la tawféex dama lay bàyyi rek nga daal di tàggoo yow it ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan di la safoo tey moom kontaan nañu ndax non seulement dangaa sañ maquillage mais sa maquillage dafa toog say ongle baax damaa oyofal noonu ñi la ñi la defal voilà di remercier euh, ki nga xamante ne euh, yàgg na ak man muy Ndeye Couma Samb onglerie des VIP moom su may dem marché sax bu sañoon damay ñëw mu jox ma perruque bu bees maquillé ma mm-hmm. euh, instant yi instant yi xam naa kuy seetaan sax su ma paree di nga ma woo ne ma gii gi may ma perruque bi moom bokkul koo xamante ne dana naan jëlal soo paree nga delloo ma ba nga tax ba tax na loolu day tax sax du ma sax bëgg di ko ne am na lu xew mais bu ko gisee day mer ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ah, ba mu may solal ba su may dem euh, Wembley bu may dem Olympia ak Las Vegas yëpp mu ànd sax man moo jaar ci kanam gi moo jaar ci bopp bi ah solo mayee ma joxe numéro voilà 77 397 82 82. Mhm. nay commencé am sama mag ju baax ji. Mhm. ah mhm. chez Ousseynou ak Assane. kontaan naa ci yow. ak xale yi fa nekk yëpp ñoom ta ñoom Tabara. ak bétti yëpp kontaan naa si ñoom. maa solo nag sama bopp. waaw la marque Guigui. ak sama sister bi nga xamante ne sama yaay sax laay wax Fatou la moom mooy indil tissu. Euh, mooy dem Suède Dubaï. yooyu yëpp indil ma tissu. damay ñawaale ay. Euh, abbaay yi fu mag ak yi fu xale yëpp donc moo koy remercier aussi au passage mm-hmm. moom moom indil euh, lu nice lii nii mm-hmm. ngeen gis tey la marque Guigui la marque Guigui moom la tey moom moo ab sponsorisé par elle-même <laughs> voilà mu def dentelle tubaab bu nice en tout cas kontaan nañu noonu nga remercier onglerie des VIP noonu laay remercier bu baax ki nga xamante ni sama mag la te fu ma dem moom laay àndal dinaa la fa yóbbu euh, yow moom sax xam naa sax jarul wax sax mais Euh, da nga ma yàgg neex nag ma yàgg bëgg toog ak yow léegi non non yàlla moo ko da professionnel parce que li tax ma wax loolu ñun artiste lañu ku nekk dañuy toog ak yow plateau mais dañuy parfois ni da lay poser question tu énervé man émission bëgguma sax mu jeex tellement ko dafa neex dafa sëy donc di ñaan yàlla nañ la dégg canal nañ la dégg TF1 nañ la dégg c nañ la dégg ci plateau yi gën a mag yi incha allah da ñàkki ñaan amin kontaan naa dinaa la yóbbu ci sama mag ji Bellevue Beauty ak dalay ñawal di la maquiller. d'accord mais fa nga xamante ni mooy Ouest Foire numéro 30 77 euh, la 402 34 22 tey damaa def à la légère rek ndax dama lay seet si te yow ndaanaan nga mais bu ma ñëwaatoon di nga xam ne lépp a dëgg. xaw ma da ngaa légère xaw ma dama tegoon ne dafa am kenn ku def émission ma la man dañ maa soppi journaliste sax. man de loolu laa foogoon man maay journaliste en tout cas merci sa a été un plaisir toog euh, sama mag ji di leen joxaat rendez-vous dootul gëjati ci kàttanu yàlla seen émission makkan la tey naa leen booleeg artistes yi ñoom la ñuy woo ñuy siiso moo tax ngeen gëjoon koo gis. Eh, Doudou Doudou maa ngi koy remercier. waaw gentil maa ngi nuyu bu baax Yankoba sama sama xarit sama caméraman ak lamin mi nga xamante ni moo ñu accompagner tey ci émission bi waaye fàttewuma benn yoon Pape ak tout le groupe de Sénégal 7 d'ici là portez-vous bien une excellente euh, soirée kontaan nañ bu baax a baax <laughs>